jere ngeen jëf mbokki internet yi ginaaw ba leen nuyo ñu ngi leen di ah, jaajëfal mbir mu mité métti rek dal di xew lay sa Kédougou sa village bu ñu naan koto ki di bugan Gueye dañi nak genn di dénoncer mbir mu mel ndax du village bi di koto ñom ñi la nak dañoo xexé rek ben société bu naan PMC dal di fay ñew ne ñom nak dañuy def ab sondage ngir wër rek ba xam or amna ci dëkk le wa dëkk ba dal di vancé wu taxaw ñom ñi la ñu dal di woo police ak gendarmerie ñu daal di leen door ay lacrymogène ba seen foofee nga xam ne rek fa lañ dëkkoon daal di jàpp tàkk loolee nag metti Bougane Gueye dani ba mu génn ne mbir mu ni mel nag dafa ñaaw te loolee nag war nañ cee taxaw ba tey moom Bougane Gueye dani nag mi ngi yëkkati ay kàddu ne ñii di waa koto nag mbir mu ni mel nag mbir mu ñaaw a ñaaw la te loolee nag état bu Sénégal war na see jukka ndax gis nañ ne or bi nag fa lay jógee te ñoom ñi la nag gisuñu si seen bopp benn yoon ndax rek ci ay néeg ñaax lañ continuer di dëkk te loolee nag war nañ ci jël ay matukaay ndaxte foofee nag ci kii dugg mbir mu ni mel mel nag ma ngi fay ëppi loxo ndax or ba nag fa lay jógee te ñoom ñi le mënuñ see gis seen bopp benn yoon na ndax lu fa génne ci ab or rek daa koy jël daal di koy yóbbul tubaab yi defaraat ko daal di koy indiwaat ci réew mi duñu ko jaayaat muy mbir ma nga xam ne nag metti ne loolu la kii di buggaan ngay daan la mu bëgg nag mooy ña nga xam ne ñoo dëkkee foofee rek ñuy gase or ba ñu daal di gis seen bopp ci wàllum or ba ndax gis nañ ne rek mbir mu nu mel moom mii di Bougane Gueye Dany daal dina ko ñaawlu rek ba fa ñaawlu yam te mi ngi woo ñi nga xam ne rek ñoo féete nguur gi ñu daal di xoolaat mbir mu nu mel ragal yàlla ci yooyee nga xam ne rek mi ngi xew ci réew mi